asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ bi bakk fal la maa ngi lay siyaar bu baax a baax alhamdulilah tabaarakallah eh, audio gaa ñi de mbakki déglu naa ko waaye day xam naa jafe-jafe de am na ci bu rëy sax nag <laughs> njuumte itam bu gis naa seetlu naa ko mooy ni ñuy dajjee borom xonq mi di sëñ bi maanaam dara gënu koy njuumte waaw dara gënu koy njuumte te xam nga loolu bu fekkoon kenn lañ ko def wala ñaar wala ñett waaye dafa bari at yi boo seetloo nit ñi nit ñuy dajee borom xam bu rek dinañ jël say wax duñ yem ci li nga wax waaye dañuy jàll ci sa jëmm tuumaal doo murit doo as gor <laughs> doo xam nga loolu sëñ bi loolu sëñ bi erreur dëgg dëgg la dañuy wax xata stratégie la boo xam ne ca kanam a kanam lees koy xam waaw sëñ Tuubaa moom yoonam yi moom li wér wóor mooy jihaadi xam-xam la woote inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa waaw wajaal binaiya binaa ilmi maanaam mu tabax léppit xam a ci jiitu ci la ko tabaxee itam ba tax na bis buñ dajjee borom xam-xam yi loolu mooy daj yoon wi moom loolu amul si bu borom xam yi ñuy wax moom xëy na ñeneen waaye ñii moom dama leen a xam xam si yéenu taalibe nga xam ne jëpp du ma doon ku leen gën a doon murit ku leen ëpp pas-pas ci sëñ bi itam xaw ma ko ku leen gën a sellal ku mel ne suñu seexoon Abdou Diouf nga xam ne tey maanaam ku gën a ragal yàlla yomb yombut gis moom maanaam maanaam jëmm la ju ju ju ragal yàlla te te dëggu daal te wér te lu mu la wax rek mu ne ci moom te mbirit nam nekk ci moom la koy waxee fii tamit nga wuteeg moom ba ci noonu ñi sax dañuy wuteeg moom ci lu bari bari man waaye dalay may nga mën a discuter ak moom mu nangul la sa xalaat waaye moom nekk ci lam ne am yaatug dënn bañul maanaam maanaam ku ko critiqué ku kii nii waaye niñ koy dajee nii daal jëmmam nii xam nga mën nañoo daje wax ji wala ñu wax li mu wax waaye daje jëmm ji loolu ñu wax ko ci loolu si ñoom te dëgg la la li ci gën a métti nag mooy li ñenn ñi jàpp ne nose la ak luñ luñ luñ nos la ci suuf ak loo xam ne dafa am nga euh, ñoo xam ni ñooy wut ay ay nit di leen ko def loolu bu fekkee loolu moom noonu la moom loolu ñoo koy def xamuñu ne ñi ngi màbb yoon wi te yëguñu ko waaw loolu mooy li wér moom waaw ndax ndax borom xam moom <clears throat> liñ jot a liggéey rek day liggéey bu rëy buñ liggéeyal yoon wi te yoon yi itam ngir mu dem fañ fa sëñ bi bëgg ñoom seenub liggéey maanaam moo ci war a jiitu kon nag sëñ màbb leen moom loolu moom njuumte la moom xam nga Paul Marty mu bon moomee Mm, waxoon na ne maanaam yoon wi moom tubaab bi sax loolu la jàppoon yoon wi moom du weesu kajoor ak bool maanaam bu ñu bëggee loolee waxi waxi tubaab yooyu maanaam dëggu nga xam du weesu kajoor bool nañ nañ wéy ci nii xam nga yëggu dara xam nga déggoon nga suñu Mbàkke Abdu Raxmaan ay waxam ñu jël tàmbali moom di wax ci jëmmam ak lu nañu wax ko ko ah, gis nga sëñ Seexuna Abdul Waduud mu baax mi gis eh, sëñ Seexuna ku am pas-pas la ci sëñ bi loolu xam naa ko ci moom day ko xam-xame nag nga xam ne kawam moom xam-xam rek nag lay dox eh, waaye xam-xam bu bu mérite la yor nag te am pas-pas bu bu bu bu xóot ci sëñ bi boo xam ni xëy na ko junjowut ak moom dëgg-dëgg mën a ko xam eh, sëñ Mbàkke noonu nee xam nga yàgg la sëñ sëñ sëñ Abdourahmaan mu baax ma sax amee jamono ñu jël ay waxam dégg nga eh, dagg ci dara ba indi ci coow loo xam ne <laughs> gis nga mu mu defaat ci ay ay defoon nañ ko gis nga yeggul dara sëñ sëñ bii rek sëñ sëñ Cheikhouna Ousseyn Daj Baara nga xam ne tuut ñu sacrifié ko moom <laughs> nga loolu sëñ bi te sëñ Cheikhouna moom tam Ousseyn Daj Baara am na taxawaay yu mu am yoo xam ne wax dëgg yàlla maa liggéey yu rëy rëy la yoo xam defoon na ko yoon wi maanaam ñu mel noonu waruñoo xëy rek sacrifier leen laa bëgg sacrifier leen laa bëgg wax daal ci ci ci même donte dañoo juumoon juum buñ juumoon juum yu wër sax yoo xam ne moom wala ñoo wax yoo xam ne tey daa ëpp sax waruñoo xëy rek sacrifier leen noonu sëñ bi <laughs> ndax xam nga loolu sëñ bi maanaam njuumte la gis nga sëñ Mamour euh, xam sa diine moom it am na jamono ay ay nit daanaka daal lu ne xam nga loolu daal gis naa ne nii doxin yi daal ñuy dox nii moom buñ ci wéyee. maanaam dañoo xëy na dañ fañ bëgg xam nga boo gisee njëlbéen ga borom xoom yu bare bari génn génn dem ci leneen mooy ne loolu sax li ma jublu jublu ma njëlbéen gu ma gàmm ak ci jamono sëñ bi waaye ay jamono rek yoo xam ne daanaka borom yu bari da nga gis daanaka ñu xaw a sori yoon li nga xam ne murid lañ da nga xam seen xol nañ ñi murid lañ waaye toog nañ mooy dañ leen dafa am wàccuwaay boo xam ne sëñ Tuubaa da koo joxoon borom xoom wàccuwaay woowee nag maanaam buñ ko sàmmut maanaam jumtukaay bu mag ci liy sàmm yoon wi dañ ko dañ ko neexal loolu moom laa laa jàpp ne lu mat a xam la moom waaw Sëñ na wàccuwaay woom joxoon borom xam nga xam ne eh, bokkut ki nga xam ne dafa doon ab sëriñ ci yoon wi ak ki nga xam ne tey sama sunu classe gi dafa doon ab taalibe boo xam ni day dox jëm ci yàlla ci diggante bi dafa am borom xam-xam nag wàccuwaay wu ko Sëñ Tuubaa joxoon waxuma la ko am xam-xam sa waaye ku mokkal alxuraan rek am na sëñ bi wàccaay um ko joxoon yooyu nag mat naa sàmm sëñ bi mat naa sàmm lool ndax liggéeyu sëñ Tuubaa bi liggéeyu xam-xam la ni ma ko waxee ba tax na daal bu fekkee li ñenn ñi jàpp ne lii lu ñu noose la moom yéen sëñ war ngeen a tax na kilifa yooyu ñu taxawal li ñuy def ndax li ñuy wax mooy mooy màbbu yoon wi moom gaa ñii ñuy jël itam ci kaw borom xam-xam yi ñoom it ba tey nañ xam ne liggéeyal seen liggéeyal sëñ Tuubaa li ñuy def itam njuumte la ah, te xeex sëñ Tuubaa la gën a nuru ndax sëñ Tuubaa jumtukaay bi nga xam ne moom la liggéey nee na mooy xam-xam daal nag jumtukaay boobu ku ci ne di yëngu des ko war a gën a fullaal des ko war a gën a fonk ndax dañu jàpp ne kii jumtukaay bi sëñ Tuubaa la waaw mi ngi taxaw ci bërëb bi sëñ yi nga xam ne mënta ñàkk ñu fa taxaw ñooñu moom luñ juum juumit war na leen a war eh, warmaal daal ak ay teggin waaye dal seen jëm sëñ bi di leen tuumaal ak <laughs> maanaam ak ñàkk gore ak sëñ bi ak ñàkk murite ak ñàkk doon murite ak ñàkk pas loolu sëñ bi loolu sëñ bi moom maanaam juum te dëgg dëgg dëgg dëgg ci àndit ànd nga ci loo xamul <laughs> nag masala yii ñuy wax nag moom masala yi moom mas na ci mas na ci wuuteeg ñoom mas na ci man maa ngi seetlu fan yi xam nga man ren fa gàmmoo ci Madina waaye ñu bari damaa gis buñ la woowee sax dañ wax ne eh, sëñ bi moo leen fi yebal fekk na man ci njëlbeen nga waxoon nañ ma ko ba ma naroon caa bokk waaye dafa diir bu yàgg boo xam dégguma kilifa yi ko yi ko yor déggoon fi itam ne ne ne ne maanaam bàyyi nañ ko moo taxoon mujj ma ànd ca loola am na yeneen mbokk yoo xam ne ñoom laa mujjoon àndal dem ca umra ga Euh, donte lii itam man taxawaay bi ma ci am mën naa ci sax wuuteeg suñ suñ seexoon naa ci misaal euh, ne man foo ma ci doon gën a tiite sax mooy réew mi réewum moo xam ni liñ nongu ci nun li ñuy def daa bëriwut ba tax na am na anam goo xam ne bu fësee rek wala mu ràññ ko rek mën nañ caa jël yeneen i kii yoo xam ni mën naa yàq lu bari daal te at yi maanaam ak kii fi ne kii fi mujj ne nii si doomi buur bi moom Muhammad bin Salman nga xam ne moom lu bari mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy defaraat ci taral gi nga xam ne moo fa nekkoon yu bari ñu ngi koy nangu yoo xam ne mosuñu ko nangu xasiida rek fi ne moom ci njëlbeen nga boo fa mësaa dugg ci aéroport ba lañ koy nangoo yooyu yëpp nag moom ñu ngi koy ñu ngi def ñu ngi jéem a dox daal ay jéego ci génn ci taral ak kii loolu nag dama yaakaar ne moom nun du ñëw maa ñëwee rek. mën mën naa yàqaat lu bari ndax ba léegi tey wàllu diine ka ña ko yor mooy mooy mooy àllu Cheikh Mouhamed Abdou Wahab nga xam ne ñoom dañ fa am doole waaw sëñ maanaam buur yi ñu ngi jéem a lijjanti mbir mi waaye nag luy gaaw daal ba tax na loolu am na doxin woo xam ne rek mën na indi jafe-jafe man foofu sax laa doon gën a xaw a xaw xaw a tiite ci mbir mi moo ko njëkkee seen doon donte man siraanu ma ko lépp dafa am mbokk moo toogal sax ma gis mu di ko génne ci laa ci laa xoole waaye du ci man xalaatuma woon sax ci mbirum dagan ak daganut ak yooyu ndax fee moom jàpp naa loolu moom moom mën naa bañ a wàññi dara waaye anam gi koy defee daal ak fës gi ak ràññeeku gi mën a fa indi yeneen jafe-jafe waaye bu loolu lépp weesoo mbirum masala yi fiq yeeg yooyu yëpp nag dal ci kaw jëmmi borom xonq moom loolu moom laa gis ne mooy njuumte te at yi dafa bari te daa daanaka borom xonq yi am ci noonu ci suñu yoon wi ñuy jàmbaar liggéeyal yoon lu bare bare bari waaw ah, suñ si wax naa waxuma dara ay kitaabu subuhat bi raw du raxin génn nga xam ne raw du raxin lu ci bari moo koy tansiq maanaam man ma koy liiree ba mu àgg ñaari téere yooyu woo naa ko sax ne ko liggéeyal ngeen yoon liggéey boo xam day jàpp naa ne sëñ Tuubaa ci moom dana leen ci gërëm waaw waaw sëñ Mbàkke Abdurahmaan noonu sëñ Maamoor xam sa diine noonu sëñ Abdurahmaan sama sëñ bu baax boobu noonu nga xam ne moom am na fex na ba tabax ay relation ay relation yoo xam ni diggante yoon wi ak ay te loolu xëy na ñu bari dañ jàpp ni mën naa bañ am solo waaye biti biti yoon wi dégg nga suñu yoon wi xamuñu ko fa xam nga <laughs> waana ñoom fex giñ koy fex giñ koy génne jox def ko ci ay téere bañ mën koo joxe ñeneen loolu sëñ bi maanaam yëpp ma ne dara gën na ko rëy ci liggéey sëñ Tuubaa noonu bi jógee Arabie Saoudite xam nga dañoo jaar fi Indonésie bërëb bii nu ne tey eh, nga xam ne bi ñëwee dañoo wax ne bayaan bi ne ko kenn def ci ñi jóge ñun mbokk yi àndal nii nga xam ne kenn ci mbokk yi ñu àndal ñoo moo ko def bi mu wax di di indee misaal ci sëñ Tuubaa ak yenn bayit waaye ñoom tey lañ njëkk dégg tur sëñ Tuubaa <laughs> nga xam ne tur wi rek ñu ngi ko doon laajaat mooy kan nangam nangam <laughs> fekk na am na téere réew dara ñu yoroon ñu tàmmal leen koo jox ñu ñu bëgg leen cee jox xam nga loolu. dama yaakaar ne foofu la liggéey bi nekk daal ay du ca biir Kajoor ak Bawol nga nekk foofu jaay positif sëñ bi di daj loo xam ni maanaam mooy li sëñ Tuubaa gën a gërëm ci yoon wi loolu moom njuumte la te ku ci àndit yaakaar naa ànd nga ci loo xam ne maa ngi jégalu ci <laughs> wax ju guddi ji waaye eh, lii daal boo ko dégloo dama am si dama ci lu ma naqar lool eh, eh, waaw nag yàlla baax na man de li ma jàpp daal mooy sëñ Cheikh na ñoom muy keneen muy man muy keneen man de li ma jàpp mooy. yoon wi moom jëpp ma ne kenn dégg nga moom ëpp na ma ci dara <laughs> sëñ Tuubaa boog laa bëgg wax sëñ Tuubaa ci moom bu ma waxee yoon nag mooy wérdu sëñ beeg tarixa beeg xase itam yéen yooyu jëmmi sëñ Tuubaa yi daal ak mboolem loo xam ne daata tax ci moom ci wàllu ruux waxuma nag mbirum matériel yi loolu moom ko bàyyi waaye mbirum mi nga xam ne mooy mooy mooy yoon moom loolu liggéey ba nga xam ne moom moom la ci. borom xam yi war a liggéey loolu moom dañ ci war a bañ a xaar kenn waaw man li ma jàpp dëgg-dëgg mooy Sëñ Tuubaa sequma ko kenn <laughs> loolu moom yàgg naa ko wax am ñu ne ma loolu jumte la ay loolu jàpp ma ne jumte la maanaam maanaam faw daal borom xam am ful la jooju daal la bëgg a wax xam ne yoon wi ñoom ci def seen bopp lañ ko defal amul keneen kuñ ko defal ku may jëmmi yàlla lañuy lañuy liggéeyal ak jëmmi Sëñ Tuubaa bi nga ne mooy sunu sëriñ ci yoon wi kooku nag lañ cee def bu leen ñu gërëmee baax na buñ gërëmut it ñoo maanaam yow nga wéy ci sa liggéey te xam ne yow sa bopp ngay liggéeyal Sëriñ Tuubaa daana wax ne àdduna kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def boppam boppam lu waay def boppam waaw fa man ya'mal mithqaala dharratin xayran yarah wa man te sëñ Tuubaa de moom moom ku xam wala nga xuus ci waxam danga nga ak bëggam ak lu ak bëggam da nga xàmmee ñim gërëm ak ñi nga xam ne nag moom wóor la bu daje ñoom doon leen doomu loolu moom sikk yàlla yàlla nag ci ñi xam ne moom ci ngërëmam lañu dox di gën a ñoŋal liggéeyam bi di ko gën a taaral nekk ab taar ci moom boo xam ne ku ko gis xemmeem ko nekk bokk ci ñi nga xam ne itam ñooy tax ñëpp mën a jariñu ci ci moom daje Sëñ Tuubaa maanaam sëñ bi xam nga eh, discours mab maa ngi doon wax ci ginnaaw ne la maanaam discours mab bi xew moom mooy indi jafe-jafe dëgg-dëgg <laughs> xaw nga ba seetloo gis nga ñoo xam dañuy mabbu sëriñ na sax ay borom xam doon loolu moom njuumte dëgg la njëkk nga xam ne ñiy mabbu borom xam-xam yi tam ñoom ñu ngi ci njuumte waaye nañu gis ñoo xam ne dañuy mabbu jëmmi wird bi ñiy mabbu ñiy jug di mabbu sëñ bi ba ci sax delluwaay yoon wi dégg nga téere yi delluwaay bi si minal waxali mag waaw na di mag ba ci yenn ci mbind sëñ bi xam nga loolu sëñ bi maanaam discours yi daal moom moom mooy moom li nga xam ne murid yëpp war nañu jug taxaw ci seen kanam moom mabbu daal moom du du moom baaxul te daa safaanoog liggéeyal sëñ Tuubaa moom